mu ne qu'est-ce que je fais à l'Assemblée nationale xam nga Assemblée nationale institution la institution bi dans sa globalité am na problème sénégale boo laaj na la ne man assemblée nationale joué rôle bi mu waroon joué mais tekkiwul ni député yi nekk assemblée nationale yëpp joué ñu seen rôle man de jàpp naa ni maa ngi joué sama rôle ndax lii ma def tey sax mbirum député la dem naa ci population yi wax ak ñoom. bi ma paree gëstu naa mbir mi ba mu leer ma ma ñëw taxaw leeral askan wi loolu rôle député la ñaata député ñoo koy def donc man la ma war a def assemblée li taxoon ay nit wóolu ma ba yóbbu ma fa maa ngi koy def te amul sénégalais bu ko mën a weddi gëw ma ko bokk boole kook salaire bàyyi mu assemblée nationale waxuma ko pour bàkk waaye ku jël deux tiers ci salaire am jox ko ay œuvre philanthropique xamal ni du salaire ñay seddoo xaalisu assemblée nationale di séddoo caisse noire bi di séddoo mission yi tout le temps ñu ngi entre deux avions député am na député yoo xam ne sax dañuy dem Dubaï remplir seen i conteneurs ñëw di jaay biir assemblée sax léegi dañu fay jaay am na ñu fay commerce ñooñu ngeen war a laaj lan la ñuy def assemblée nationale mais man li may def assemblée nationale askan wi gis na